ci mbirum Petrotim kenn xamagul fu wànnant di mujjee gëtam kuréel bi di congrès de la renaissance démocratique mu ngi laaj rek ñu ubbi l'enquête ngir rek leeral mbir mi. ñetti at ca gannaaw defu ca dara tey lay soog a nag ne nañu indi enquête mais ñun loolu la ñu yàkkamti loolu ñu mës laaj waaye nag enquête bi na doon enquête bu mën a li tax ñu jël pétrole ak gazu Sénégal.

Euh, Sénégal nag ñoom ñu gënal fantimis mais Macky Sall dafa mel ni ne fantimis gënal Sénégal loolu mo leer ci document bu ci présenté tay parce que xamone na ko ci boppam Macky Sall liggéey na Petrosen mom ci boppam nek na ministre de l'énergie donc xam na bu baax article 8, code pétrolier bi la muy wax capacité technique ak capacité financière xam na ko non seulement wax nañ ko ko mais mu ba ce sont les flux financiers illicites vous avez entendu parler d'un rapport de Mbeki qui dit que l'Afrique chaque année il y a au moins 60 milliards de dollars de flux financiers illicites qui fiy yoga. Mbeki le tiers au moins 20 milliards de dollars ça vient des compagnies pétrolières et minières flux financiers illicites sont les accords secrets que les compagnies pétrolières ont avec des individus ou des chefs politiques africains le même nom que moi am entre BP et Frank Timis loolu la BBC C'est te kenn weddiwul Nous ñëpp nous avons dañuy des accords secrets de toute façon montant li ñuy wax du donc l'accord secret existe ces flux financiers illicites existent

ñi ngan ko kuréel bi xamal nañ ne pare nañu wuyu ji kii di procureur de la république fekk rek ñu teg ko ci yoon donte seeni xel tey na ci li ñu gisagum. ñun yàkkamti nañu dem ca moom wax ko liñ ci xam waaye bu yéen ñii na di déglu bu baax li ñu soxla mooy haute trahison bi kan moo ko indi fan la jóge naka la ne am. waaye document bi génn rapport bi génn na warutoon a ci ñun la waroon a des ñu ko ndax décret yi nga tax contrat ba contrat am contrat bi wax de Ablaye wat ak Karim ko signé diggante état du Sénégal ak pétrole décret bi nga xam ne moo mën a tax contrat boobu ñu mën ko jëf Ablaye Wade ak Karim Wade Ablaye Wade sax moo ko war a signé ndax décret la président mooy signé décret xëy na signé na ko loolu am na itam waaye demut li indi contrat bi ñu mën ko liggéey li indi contrat bi indi suñu pétrole dem ca loxo Frantimis loolu mu ngi jógee ci décret bi Macky Sall signé moom la du keneen ah, ah lu am solo loo xam ne fàtte wax sax bu leen jaawale nag Abdoul Aziz Mbaye ancien directeur de cabinet du président ak Abdoul Mbaye bokkuñu de. ñu yokk ci di artu nguur gi rek ci seeni kaaraange. ñun wala kenn ci ñun su ko dara dalee.

Si leen demee ministère du ministère gouvernement décret euh, d'attribution des blocs Saint-Louis offshore profond à carrière offshore profond de 2012 accès de renouvellement 2013 n'est que tout c'est c'est pas normal décret pour nous mën kër bu sens d'un gouvernement publié publier Nous nous nañ une def responsabilité personnelle c'est loolu bëggoon nañ mu mbirum Petrotim nekk na lu soxal askan wi ginnaaw kuréel aar li ñu bokk démb bi ñu taxawal tey jii lii di congrès de la renaissance démocratique tamit juddu na ñoom ñëpp rek ñu fas yéene def seeni kem kàttan ngir rekk aar lii di moomeel Sénégal.